الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وله ñu ngi mbokk yi alquran ak sunna rek di leen ziyaar di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu def ñu tawfiq te defal leen ko bidnillahi subhaanahu wa taala dañoo bëgg a tàmbali fii silsila boo xam ne laalla du doon bu gudd bu aju ci dundu lenn ci dundu alxaaji malik alxaaji malik si ah, li waral nañu bëgg a amay taxaw seetlu ci dundam ak lenn ci ay mbindam wala ci pas-pasam ñaari mbir la wala ba ñett bi ci jiitu mooy annoncé woon nañ ko ba nga xamee ne amoon nañ ay taxaw seetlu ay jàngat ci dundu ci Amadou Bamba plus particulièrement relation plus particulièrement relation ak li nga xam ne moom mooy tubaab bi waxoon nañ ne suñ paree bëggoon nañu jël kenn nekk ñoom jël Alaaji Maalik jël tamit ki mooy euh, kii di Ibrahima Niass euh, ñu koy wax Baye Niass euh, jàngat tamit seen relation ak tubaab bi depuis kon ñu ngi ci doon bëgg ñëw waaye la tey la ko yàlla dogal ñëwuñ ci woon ndax tamit dajalu ñoon lépp li xam ne ay ressources ay sources la mën nañ cee mën nañ cee jëfandikoo ba yàlla may nañu dañu Euh, yiñ bëggoon a jot yenn yi wala ci ëpp euh, jot nañ ko gis nañ tamit ay mbokk di ko di ko sàkku euh, ci ay commentaire di laaj niñ def ak Cheikh ba Bamba ñu def ko ñeneen ñi pour indi daal leeral leneen li ko waral tamit mooy mooy liy waral ñuy faral di si sëriñ mooy am luy tax ñu koy def da am loo xam ne problématique boo xam ne moom lañ bëgg a tontu wala laaj boo xam ne day jóge ci société bi laaj nag mën naa doon laaj boo xam ne day doon laaj bu verbal mun naa doon laaj boo xam ne seen xaal naam seen eh, événement yi wala doxalin wala actualité moo koy laaj ngir daa ci war a ñëw pour indi ci li xam ne mooy mooy tontu laaj woowu nag ñaari mbir la ñaari laaj la laaj bu jiitu mooy da gis ci fan yi wala ci at yi wala ci weer yi ñu bari yi ngi gis position wu sëriñ ci jëmale ci autorité publique yi mu jeexal mu ñu bari ñu bari di ci kaas ah, am ñoo xam ne dañuy jébbalu daal di ànd ak ñoom ci seen i taxawoon seen i gisin ndaxte ñoom noonu la ñuy doxalee loolu mooy suufiya mooy taalibe day doon ci sëriñam comme ab néew bu ñuy sang rek ku ni diire la du xool fu ndoggam di eh, fu ndoggam di dal am ñoo xam ne. dañ koy jéem a def dañuy jéem a dañ koy naqarlu waaye nag dañ ciy dédduwaañey mag ña ne ñii ñu yees ñii ñu bees ñii ñoom ñoo indi yoon wu yees ñoom ñoo wàcc yoon waaye mag ñi nekk ñoon ca ca loolu am ñoo xam ne ñoom nag mbir bi da yee sax bañu mar ba ñu tàmbalee bàyyi bàyyi ñoo ñu daal di wuti leneen am ñuy wuti diine ju wér gi muy sunna ñoom loolu la am sax ñoo xam dañuy faral daal di wàcc li nga xam ne jàpp ne ñii ñooy lislaam daal di cay tàmbalee di noonoo di noonoo lislaam lu mel noonu nag pour jàngal ko foog ñu del jàngat foog ñu delluwaat ci histoire xool ndax euh, taxawaay bii nii taxawaay bu yees la ci yoon wi ñu nekk ñoom ndax taxawaay bii nii euh, dafa doon loo xam ne mag ñi ñoom nekk ñu ci amuñu ko woon wala bokk relation yi ñu am seeni autorité nekkuloon relation mag ña ñii daal di koy indi wala nag mbir bi continuité la loolu yëpp dañ ko jéem a jàngat ci euh, silsile bi ci d'une manière bien lay subhanahu wa taala objectif donte nag objectif du teene ne dinañ euh, yoon biñ jël tey dina ci bokkaale ay commentaires yoo xam ne mënut a doon lu ay commentaires yoo xam ne c'est subjectif waaye suñuy relater fay histoire bi moom dañ koy def bi bind lay sonta d'une manière très très objective waaw léegi nag commentaire yi ñu ci def moom la chaque ne ku commentaire rek foofu noon subjectivité euh, subjectivité dugg na bi la bi la chèque beneen mbir bi ko waral tamit mooy ñoo gis fan yi tamit seeni i ñenn ñoo xam seen bopp ci waa famille ci njabootu Malik eh, eh, si ci njabootu Alaaji Malik si njabootu Mbay si dañoo am lu ñu jugtee mooy jugtee làmmiñ wu rëy wax ju bari jugtee di sos di sànni ci waa sunna eh, ñu gis ne ñoom la mbir yu bari dañoo xam dañ koy sosal sunna te mu nekk mu nekkee sos donc daa nekk loon dafa wër ci wër ci seen i sëriñ jàpp ne la àlla fàttal leen histoire seen i sëriñ seen yoonu sëriñ ak tamit ñu bañ a yóbbu nit ñi ci loo xam ne c'est pas ak ay mbir yoo xam ne jullit ñi dëppoo ñu ne dañoo dëppoo ci ne ak réer la gu mat seen i sëriñ tàbbi ci gis na lool daal koy teg indi ko teg ko ci taabul bi wala teg ko ci ah, ci balance alquran ak sunna laal la dina leen den leen jëriñ euh, laal la dina tax ñu daal di eh, xam seen xam seen bopp ba bañ a euh, jëli xeer di ko sànni war sanda dañuy faral def naan ku am li nga xam ne mooy kërug verre di sanni kenn xeer ndax suñu fayoo rek doo dootoo desee dootoo am kër am ak ne nag eh, lii nii lu ko tax a jóg du loolu sax mooy loolu lenn la ci la rek mais tax a jug principal mbir mooy nit ki daal di xam histoire xam li xam ne moo xam réew mi fi mu jugee fi mu jëm ñu xam lañu ñu gëm lu mu lu mu doon ak lañu gëm la leen wax lu ciy dëggal lu nekkul dëgg ak xamit lan la ci alquran ak sunna euh, daal di daal di euh, daal di daal di wax kon li mooy doon jubluwaay incha allah taxaw seetlu yi nga xam ne dinañ ko am ci wala jàngat yi nga xam ne dinañ ko am ci dund li nga xam mooy euh, dund Alaaji Maalik Si xam naa mën nañ ko dippee relation Euh, commentaire sur la vie de El Malik Sy la relation de El Malik Sy avec euh, le colon euh, comme niñ ko tippee woon ci li nga xam ne moom mooy système bi ñu defoon ci sëriñ si sëriñ si sëriñ sëriñ Touba. fekkee loolu leer na ci jubluwaay ci disere bi kon ñoo ñaan yàlla sunu borom mu defal ñu tawfiq may ñu fekkee ak tal feex may ñu jot gu mat ba nu muñ koo eggale point bi nga xam ne mooy point bi jiitu ci liñ nar a waxtaane ci sere bi mooy laaju ci kon relation wam ak li nga xam ne moom mooy tubaab bi ak yan étape la jaar ak ban évolution moo ci moo ci am waaye loolu balaa nga cee ñëw faaw nga xamal xam le nit ki xam mooy kan xam le nit ki nag ni ko jàngalekat yi ak jàngkat yi gëstukat yi faral defee mooy day dellu ci xam turam xam turu baayam turu ndeyam xam famu mu juddoo fa mu ak lenn ci li nga xam ne moom mooy kii sisam kon loolu ci taxaw taxaw bu am ci ay am ci ay jàngat doogu ñëw ci relation am ak colon yi ñaareel point bi mooy xamle pas-pasam xam ne pas-pasam tamit dafay aju ci ci koy jiitu xam ne moom fa mu daan lan moo nekkoon balluwaayam wala lan la daan tubbe mooy lan moo nekkoon manhajum ci at-talaqi wal istidlal loolu dina permettre nit ki ñu doon xam lan mooy pas-pasam ci lan la doon lan moo nekkoon pas-pasam duñ nag tudd pas-pasam ci yëpp yi bunt waaye dañ ko tudd ci mbir yi nga xam ne day faral di fis ñi nga xam ne ñoo jonoog nekk moom wala boog dina mm, tax nit ki comprendre lu tax ñoom ñooy nekk ay taalibi ak njabootam di wuteeg ahlu sunnati wal eh, wal jamaa eh, moo tax dinañ taxaw ci pas-pasam ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw ci pas-pasam ci kan mooy Ahmed Ahmed Tijani balaa boobu dinañ ñëw ci li nga xam ne mooy manhaj talaqim al istidlal mën nañoo nag den saa yi niñ ko annoncé ni mën nañ ko inversé ndax li ñuy wax ni nekkul lu ñu bind euh, dañ ko tartib ci bopp bi di ko di ko indee nii wala suñuy dem ci biir wax ji mën nañoo dem ba si yàgg euh, niñ ko tartibee nii mu nekk lu mën nañoo demit ba ci biir am lu ñu gis daal ko cay daal di ko cay daal di koy yokk waaye di dee doon benn euh, genre aperçu rek pour nit ki mën a topp mooy li nga xam ne moom lañ nar a moom la ñu nar def. beneen point bi ñetteel bi mooy taxaw ci lenn ci li nga xam ne moom mooy euh, ay euh, lenn ci li xam ne mooy ay ay bindam dana ci bokk tamit ci CITES bi loo xam ne ko tuddee bonus ci ay vidéo xam ñu koy gis ñenn ci ay njabootam di ko wax yenn saa dañ ci indi benn daal ci ay taxaw am ci ay taxaw ay taxaw seetlu ak ay ak leeral ba tey mu ànd ak euh, mu li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy mbir mi kon ci gàttal nii lañu war a nii lañu bëggee eh, jaarale eh, silsile bi nga xam ne eh, nan lañ ci taxaw bind lay subhanahu wa taala bu lañ ko taxawee jajoo ci xamle lenn ci diggante taxawaayu Malick Sy ak li xam mooy colonisation bi laal la yenn saa yi dina am benn istidraat bu ci am tuuti nañu xaabaabal tuuti mu dugg ci taxawaayu na ci ña ko wuutu jutu ca xalifam ba eh, Aboubacar eh, si ak ñi nga xam ne ñoo ko wuutu seeni taxawaay yenn say ci la nga xam ne amoon nañ ko diggante eh, amoon na ko diggante moom ak colon bi ak li nga xam ne moom mooy ña wuutu colon bi ku ci mel ni Senghor ak yenn homme politique yi ku mel ni Lamine Gueye ak ñi nga xam ne ñoo leen wuutu ak njabootu Babacar Sy Eh, ñu ñu ne wut ci xilaafa gi ci xilaafa seen kërug bàyyi googu seen kërug maam ñoom it taxawaay yi nga xam ne am nañ ko diggante ak autorité yi loolu doon istidrak yenn saa yi dinañ ko ci eh, dinañ ko ci eh, dugalaale ngir ñu xool ndax continuité la wala fam ba rupture bu am ci diggante raj maali si doxalin ba mu amoon ak ginnaaw ak moom mbay si ak ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko ñoo Euh, ginnaaw loolu euh, dafay baax ci ngëstu yu mel ni nit ki di tudd mooy source am ndaxte à chaque nit ki lépp loolu daf koy daf koy wax ci mbir yu mel ni wax ni histoire fa mu documenté euh, documentation boobu nag donte sax du aw bind fa nga koy tudd nekk ab jàppalante ak wala da bokk na jubluwaay bi gëstukat yi ñu mën a dellu fa nga dellu muy bi leen yeneen bunt ndaxte lii di gëstu moom ay bunt yu ibbeeku la rek da ngay saa bu ibbee bunt bunt dalay ibbil ak beneen bunt nga topp bunt woowu noonu ba daal di am la nga xam mu nga doon mu nga doon wër ba yem ci la nga xam mu nga doon mu nga doon mu nga doon wër kon gëstukat bi moom da koy jàppale day ah, doon waajib ci moom sa nga tuddal ko say source fa nga xam ne fa ngay ah, fa ngay fa ngay tibbee si day doon bunt bu ibbeeku rek ku nekk daal di ñëw wax lu la ah, wax lu la neex da ngay gës da ngay tamit am gëstu da ngay jafoon tamit ci gëstu ña la Euh, yoo xam ne jiitu na la ci ci ci sujet bi ñuy bëri yeneen buntu nga dem ci ci buntu yooyu daal di fay daal di ñi nga xam tamit ñooy sakat tamit dañuy soxla nit ki la wax mu teg ko ci ay mu teg ko ci preuve teg ko fam daal ko leen funa leen mën a sukkandiku euh, moo tax euh, ci li nga xam ne ci lañu principal source yi nga xam ne ci lañu jëfandu mbokk na ca les voies du soufisme au sud du Sahara bu Adriana bu Adriana Piga naam euh, bokk na ci tamit euh, l'islam au Sénégal le poids des confréries wala l'émiettement de l'autorité spirituelle euh, bu Birane bu Birane bu Birane Wade tamit na ci tamit une Tidiane pure enjeux locaux internationaux du Sénégal au Maroc bu Fabienne bu Fabienne Samson bokk na tamit ci source yi nga xam ne ci jëfandikoo ci mooy premier point mën nañu premier source yi ñu tudd mooy li aju ci wàllu histoire ak Coran bu euh, Jean un politologue chez les de Jean Jean Smith wala Jean Schmitt na bokk nañ tamit mooy principal bi nga xam ne bokk bokk na ci liñ ci jëfandikoo lu bari surtout ci tartib biñ ko nar a indee ci wàllu ni mu euh, relation ma colonisation ak euh, évolution bi mooy thèse doctorat bu kii di Rawane Mbaye l'islam au Sénégal mu nekkoon ci année mille neuf cent soixante quinze mille neuf cent soixante soixante seize foofu dina dina tamit baax ni xam ne rawaan bay moom il est objectif euh, comme objectif euh, donc je parle de dire mënuñu wax ne day jël dafay indi wala loo xam ne dafay euh, va à ndaxte ñi ñuy wax ne ay sëriñam lañ kon moom la ñuy wax moom du nekk loo xam ne da koy indi ngir jàpp da leen di da leen di lor moo tax sukkandiku ci ay thèse bi Euh, dafay dafay am solo naan bokk na ci bi nga xam ne dinañ ci taxaw wala bokk ci source yi principal yi le Mali euh, du dix-neuvième siècle à nos à jours euh, bokk na tamit ci source si les métamorphoses des modèles de succession dans la dans la Tijaniya séné séné séné sénégalaise ak yeneen yoo xam ne yeneen yoo xam ne dañ ci ay source am taxaw nañ ci Euh, bokk na ci ab euh, thèse xam euh, nañ ko bindee fële ci université d'Oran ko taqdim tun mawqifu tariqati tijaniya min qadaya al istimar al kubra fi shamal wa garb al afriqiya mu nekk ab gëstu tamit bu solo ci ci jeu bi dañuy permettre relation bi ñuy def diggante tariqa tijaniya bi xam mooy source ba seen taxawaay mooy seen i seen i sëriñ ñoom seen i sëriñ naari yaa nekk euh, nekkoon Algérie euh, jiite tariqa bi seen taxawaay ñoom ci face à la colonisation face euh, seen taxawaay face au résistant au résistant algérien loolu daf ñuy éclairer ci mawqifu wala ñu Malick Sy ak ñu ñoom tamit ci Sénégal face à la colonisation am na benn lien bu ci bu ci am dañ ci indi dañ ci indi lenn. kon lii mooy li aju euh, ce que naa leen daal ci source yi nga xam ne euh, taxaw na ci am na yu ma am na yu taxaw naa ci am na yu ma bàyyi te source yi kan moo aju ci la nga xam ne moom la euh, moom mooy pas-pasam ak gisinam ci li nga xam ne mooy mooy mooy diine principalement ci la mu bind la ñuy la taxaw bokk na ca bi téere bi xam nga ifhaamul munkiri al munkiri jaani Euh, mu nekk boo xam ne téere bu am solo la ci xam ngay ki ñuy waxtaane lan moo doonoon pas-pasam lan euh, moo doonoon mënafijam ci ci ci ci istidlaal lan moo doonoon gisinam ci taxawaayam ci xam ne mooy euh, Ahmed Ahmed Tidiane ak lan sax moo doon mustawaam al ilmi da ciy da ciy da da ciy feeñ bokk na ci nga xam ne nañ ca taxaw ressources yi nga xam ne nañ ci dellu mooy xalaasu xalaasu zahab maanaam rawat na ci gisinam ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam asmaan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ab jaariya moo ca moo ca moo ca moo ca jiitu téere bi nga xam ne lañ ci yor ñun mooy charx bi ci yor mooy neelul neelu arab naam ci moom mooy foofu la ji dañuy dellu page bu ñu tuddit naam dañuy nit ki dellu kon ci neelu arab min xalaasi min xalaasi zahab charx la ci Euh, ci ci téere bi bokk nañ tamit euh, euh, source yi nga xam ne dinañ ci dellu dellu nañ ci wala nañ ci dellu ci silsila bi mooy qantaratu qantaratu lmurid bokk na bi fak fakihatu at-tullab ak li xam ne mooy te bokk na ci yëpp solo kifayatu bi nga xam ne mooy la bokk na ci la mujjee bind naa la Euh, date ko bind jàpp nañu mille neuf cent vingt la ñuy euh, la ñuy wax euh, ci bind ba mu koy ba muy faatu fekkut mu ñu tasaare wu téere bi daal di génn li nga xam ne rawan ba mi ngi ko indi ci ci ci teesam bi kon kon loolu moom doon xam ne moom li mujjee naam ci nga xam ne cada la ca la faatu moo da bokk na ci laala moom ak ifhaamul munkir al Eh, eh, sunu paree si bi daal am taxaw yoo xam ne taxaw yu gën a yaatu la ci taxaw yoo xam ne taxaw nañ ko fii kona a ah, eh, som lii mooy source yi nga xam ne d'une manière d'une manière générale source yi nga xam ne dinañ ci dinañ ci dellu ci ci ci li nga xam ne moom mooy ci silsila bi su fekkee ne am na yeneen source si biir wax ji suñu indee lenn dinañ joxoñ ñuy source boobu na barakallahu fikum